sama rab dafa jànge nga. Movies Awards ñooy sargal artist yi ak képp ku yëngu ci wàllu audiovisuel ak cinéma ñu amee fii ci teeru bi le 25 avril ma ci woo ñëpp képp kuy fans ak képp koo xamante ne bëgg nga cinéma Sénégal nga ñëw fii nii il y aura des pour tous.